di suñu Kër su nekk. a ngi déglu sunu kër FM ci 3W point sunu kër point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 di ñaan yàlla suñu waxtaan wi fekk leen ci jàmm ak salaam ngeen dégloo ñu ak xel bañ ñu dégloo ak xol may nuyu ñëpp ñoo xam ne nii ñu ngi yeewoo ci àddina képp koo xam ne yaa ngi noyyi ci àddina rek sama nuyoo bi ñëw naa ba sa suufu tànk ma sukk jébbal la ko ni ko suñu borom santaane muy salaamaaleykum wa rahmatulahi sax barakaatu kon nag nuyoo baa ngi noonu nuyu naa leen yéen ñëpp ma kenn waaw euh, soxna si ñu ngi lay dellu di la fay ndey asu euh, di la jox sa wàccuwaay di nuyu suñuy auditeur suñuy internet euh, suñu Kër FM di ziar képp koo xam ne si jamono ji yaa ngi en ligne di àddu di leen ziar bu baax a baax di sant yàlla aussi ba ñu mayee kàttan ak dal ak fekke bañ dellu siwaat fii fas yéene dégtal leen li ñu naan magum puso magum puso nag ndey tey moom xam naa ne thème bi nga indi war naa am solo ndey maa ngi lay ziar. bu baax a baax Sadou maa ngi delloo ziar bi euh, di ziar képp koo xam ne rek suñu euh, yaa ngi bàyyi xel thème bi tey nag euh, wareefu néegu sëy la hmm. néegu sëy daal ak lépp li ci biir ak lu ko wundu diggante góor ak jigéen diggante famille ba famille ku jigéen ki famille ku góor ki ba ni ngeen di fombe fondé famille loolu daal laa bëggoon ñu waxtaane ci tey euh, muy waxtaan woo xamante ne nii ku ne xëj na ci ku ne bokk na ci euh, ku ne mën nga ci gis sa bopp gisin bu rafet nag lañ wax hmm. comme ni ma koy baaxee di wax rek ñun yàlla moo def ñu toog fii waaye li ñuy def am na ñu ko dàq fuuf hmm. am na ñoo xam ne ñooñu ëpp xel ci li ñuy def am na ñoo xam ne xalaat biñ ci yor ñun yoruñu ko ci kon nag comme ñun la fi yàlla teg ñuy waxtaan ak yéen ngeen dégloo ñu ak seen xel rek te bañ ñu dégloo ak xol ñu sottante xalaat yeetante jël suñu puso rek fas yéenee ñaw comme nañ ko daan defee yaakaar naa ne semaine yi ñu paase euh, li ñu jotoon a ñaw dëgër na kon nag tey ñu dugg ci néegu sëy yi jéem a mboros ak suñu puso bu dëgër bi nga xam ne moom la ñu yor wëñ gu dëgër gi ñu ñawati rek mm-hmm. ndaxte saadi bu sëy ñaara ko seq dëgg muy góor ak jigéen ku góor ki am na famille am ku jigéen ki am na famille mm-hmm. Euh, kon nag ñaari ndaw bu ñu doxee ba gisante bëggante peccu liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya kon faw wayjur yi tamit am ci paar suñu gisantee dox seeni dox ba bëggante ni ko yoon bëggee ak ni ko lislaam bëggee ak ni ko diine bu munti nekk ak ni mu ko bëggee bu ñu yeggee ba cay waajur ya waajur yi def li nga xam ne moo ci war a ne taxaw ci kanamu yàlla ak diine boo mënti bokk nag di nga seedeel yàlla sëy bi bu ñu seedeelee borom bi sëy bi ba takk sëy bi ba xam ne sëy bi takk nañ ko diggante góor ak jigéen ñu xam ne fi mu ne nii caaxaan amatul ndey amatul baay amatul yéen ñaar rek yéen a war a gérer seen àdduna gérer seen bopp ba yàlla may leen njaboot gu toll nii ngeen toll nii ba mun koo maye moom mu dem sëy kon nañ ko rafetal nañ ko rafetal nañ ko jaarale ci yoon ndax ku ci nekk balaa ngaa dugg dañ lay yedd ndaxte mbànd mi sëy bu ñu fas rek boo ubbee buntu ba fekk fa mbànd mi mbànd mi mbànd mi kaani lañ ko sol bam fess del del del del del ni makoy waxe kaani gi nak buñ ko defé ci mbànd ba mu xaj dañuy def tuuti lem bala bala mbànd mi xaj sax dañuy def lem ci bi def kaani defat lem def kaani mure ko lem nak ci kaw ba nga fogné lepp lem la kon nak soy nan sa lem muy neex bis bo dajé kaani ga muñal ndax musuma gis ku ñu tek ci ëtt di ko pour ciet di la wax soo demee nanga fippu muñal rek laay dégg ñuy wax kon comme muñal lañ ñu sant muur suñuy bët takk ko nga sëgg ci sa ginnaaw bàjjen mu ommat la ba nga yegg fa nga jëm kon xam nga ne fa nga jëm neexul te guddi lañ lay yóbbu kon dangaa war a muñ boo yeggee suturaal sa bopp suturaal ña ngay fekk ndax boo respecté sa bopp respecté ñi nga ñi nga bàyyi kon boo yeggee ña nga fekki di nga leen respecté stade bi mos euh, parole baa ngi euh, am na solo amati na solo nday Astou. Euh, néegu sëy dafa yaatu. Mhm. comme ni nga ko waxee ci sa njëlbeenu wax. yaatu na lool macha allah ñëpp ci xaj. waaye ndey sëy dafa nekk loo xam ne suñu boroom da koo santaane yàlla moo santaane ñaar ñu bëggante war a sëy sëy nag comme ni nga ko waxee góor la ak jigéen góor mooy gis bëgg jigéen la majeure la majeure partie mhm. góor mooy gis jigéen fas yéene ko def soxna ñu ànd sëy ñoom ñaar mhm. waaye ndey am nga ci sa wax euh, ma bàyyi ci xel mhm. muy kaani geek lem googu gis nga sëy lépp lu ko yàq nuyoo woon na sa njëlbeen ga dañ koo faalewul mm-hmm. nuyoo na sa njëlbeen ga waaye dañ koo fayul dëgg euh, te suñ borom subhaanahu wa moom daf ne wax dafa daganal sëy ba pare bañ lu ko tas mm-hmm. donte valable na mais moom la gën a bañ ci loolu ndax euh, sëy sutura ngi ci biir jàppalante ngi ci biir yërmande ngi ci biir lépp a ngi ci biir sëy yërmande yow yow mi nga xam ne yaay kilifa gu góor gi yaa war a yërëm jigéen jigéen suturaal borom këram gis nga ñaar yooyu bu ñu àndee sëy ba dana neex lool lool lool lool ndax sutura ak yërmande ñoo tënk sëy ndax euh, doomu aadama mënta ñàkk mer waaye ndey muy góor muy jigéen bu la sa soxna defee lu la naqari wala mu wax la lu la naqari wala sa boroom kër wax la ko wala mu def la ko tey jàppal na démb defaloo na lu neex nga nga pàkkar ñi fecc ba naaw mm-hmm. xam nga loolu boo ko xalaatee rek. Mm-hmm. boo xalaatee démb yëfi tey du la saf. Mm-hmm. ndey nañ dem ba ci kanam sëy yaatu na ndey. <laughs> sëy kay yaatu na <laughs> sëy mënuñ koo jeexal tey. est-ce que. Euh, surtout que ni nga ko waxee noonu rek sëy euh, ñaari nit ñi nga xam ne ñoo ko séq il faut mu am compréhension. Mm-hmm. am waxtaan mais bu ci nëbbante amee rek réeroo day am ku ci nekk balaa ngaa dugg ci dara waxtaan seeg sa morom. parce que euh, euh, jigéen yàlla da ko fàqee ci faaru càmmooñu góor mm-hmm. kon noo mën a def rek góor yilif la sànq nee naa la euh, mbànd mi lem la ñu jiital teg kaani tegaat lem tegaat kaani tegaat lem loolu laa la bëgg a tojal mm-hmm. bu lay ngoro day neex lool lool lool lool ba kenn du xëcc seen diggante attan ngaa wiccax sa loxo say parents sax ndax ki ngay ki ngay bëgganteel kenn du ngeen ko xëjël seen biir kenn du ngeen ko xëjël seen diggante mooy lem bi ci kaw ak bu ngeen di soog a sëy dana neex lool lool lool su ngeen demee ba ci kanam nga commencé maq kaani ga waaye kaani gi nag pour nga maq ko wax nga ko léegi sa biir wax il faut nga jël lemu démb ja delloosi ko mhm. lemu démb jooju moom ngay delloosi teg ko ci kaw kaani gi su dee nar ngaa mëq kaani ga nga mëq kaani gi ba dajaat lem mooy njaboot gi ngay am mu di la bégal di naatal sa xol su njaboot gi tolloo ci uti ak am ak ñàkk mooy geneen kaani ga ndax kenn du xëjoog ñoom ci kër gi seen waajur doo xëjoog ñoom ci kër gi commencé ngaa jëm mag jikko yi génn nañu naqari deret bi feeñ na feebar am na wéré di taxaw na mag taxaw na lépp taxaw na geneen lem ga ca suuf mooy keroog ba gone yi tekkee bat yéegal la ci taaxum kaw gaareel la oto ak ñi lay toppatoo mooy lem ak kaani yi ma la waxal noonu mm-hmm. ñeenti tranche yi ma la tegal noonu moom laa ko tranché noonu kon nag képp koo xam ne nii yaa ngi lekk sa kaani jëlal lem ja teg ca kaw kaani ga mm-hmm. te xam ne mosoon nga lem mu neex kon bu kaani gi ñëwee na ko assumé ndax comme ñun yàlla daf ñoo boole góor dindee ñu ci faaru càmmoñam ala kulli xaal ñooy ànd dara mënu ñoo tàqale sëy dagan na fase dagan na waaye yàlla fase la gën a sib te fase mooy mujj boobu danañ ci ñëw ci waxtaanu fase danañ ci mësa a ñëw waaye tey moom néegu sëy lañuy waxtaane ñun jigéen hmm. yomb nañoo nax yomb nañoo muñal soo amee sa as tuut bégalal sa jabar Begelal sa soxna bi nga xamne mo nek ci kër ga di muñal sa soxna si nga xamne juragul sa soxna si nga xamne mo la fasiyene jural say dom te dom di alal lo am begelku. ko waye gis na euh, saat bu sen genre go xamantene ne buñu wacce jaar nañ ci dibiteri ba lek nañ ba sen bir fess nan nañ sen lu sedd ñew ci kër ga mbaxal ma nga len baye lon yow dépense mbaxal ba nga len joxone ba nga joxone sa soxna bu ñëwee bu la ko tégalé nga jéggi bol bi nako do togg lu bax ay aka sonn aka sonn daw naa dawa dawa dawa daw ba bëgg a dee fu ne taxaw na fa ndugg marché ba fu ne taxaw na wàññilu xool fii xool gauche xool droite ba ñëw ba réaliser dara tegal la ko nga la lekk ci nag te gërëm ko won ko ne ko àddina yaa fi dàqa togg su ma la amuloon fu ma jëm jigéen ku ko jay rek mu jayaxu day jayaxu ba daanu waaye bu fekkente ne yow dem nga faj sa aajo ci keneen wala am na keneen koo xam ne jox nga ko 3 euh, mille ya nga foraatu woon jox nga ko 2 mille ya jël 1000 francs yi fas yéene koo joxe sa sa sa soxna 2 mille yi nga dem mu njaral la ci njar mu neex defal la ci attaaya tegal la gerte caaf nga yey ko sa biir fess bo yegge nak bula tegalé sombi ba do ko naan parce que amna fo jaar ñun fiiruñu de mais dañoo bañ ko ñu yab dañoo bañ ko ñu yab ndax ëllëg ka ngay àndal noonu di ko jox sa 2000 francs yooyu mu di la ataayal ci côté bi mbaa mu di la defal ay njaru ci ci bi foo ko rombe yow sa soxna ñu ko ñu joxoñ ko mook ay groupe ma nga ne soxna diw bi ma nga ne diw mi ñëw sama kër dafa wàccee nangam ak nangam diw mi ñëw sama kër ma di ko njaral diw mii def soxnaa ma nga ne ay yow ki yaram tëlu na di sama mbokk jigéen ñu ngi lay jëw xaat di la joxoñi baaram te fekk ne yaa ngi toog di muñ loo borom bi yaa ngi toog di muñ te yàlla tax ngir ëllëg njaboot ga fay am man laa sauver ngir ëllëg njabot gën kay am man laa mën a tekki ba yor la man laa sutural man laa teg fa nga xam ne fa lañ war a teg wayjur bu liggéey ba ba sonn ndax sëy kat liggéey la sëy liggéey la te liggéey bu ne am na retraite soo retraité xalaatal pension ba nga war am wala boo retraité xalaatal pilian ba nga war a toog yor sa course di jaamu yàlla kooku doom rek moo la ko mën a may mhm. am na ñoo xam ne nag yàlla mayu leen ko yàlla mayu leen njaboot waaye du ñu torox ba àddina tukki ndax def nañ lu baax ci ñi nga xam ne nii nag sëy nañ sëy bu rafet ak seen borom kër te yàlla mayu leen njaboot njabootu jàmbur dana leen suturaal ba duñu xam lii fa mu jógee rek ca mbir mbir mi ci yàlla rek lay jóge kon nañu lu àq ci suñu borom kër yi borom kër yi tamit nañu lu àq ci soxna yi ñaari way dencante lañ wax ku jigéen ki bañ la koy jox muñal muñal rek lañ lay wax muñal ko su demee nga muñal ko xoolee ko sa yaay xoolee ko sa jigéen loolu rek lañ lay wax yow ku jigéen ki booy dem boo demee na nga ko muñal soo demee na nga ko muñal kon li ñuy muñ neexul comme neexul nag yow góor nga muñal ko xoolee ko ni sa jigéen xoolee ko ni sa yaay te xam ne ñun suñu xel yi ni mu sëggee noonu la suñu ween yi sëggee kon buñ ñu muñalul dara du baax ñeme nañu am nañu fit mën nañ tooñ mën nañ tontu waaye buñ ñu muñalul mën na gaaw nañ fàtte it lu baax loo ñu defal loolu moom man maa ko wax en tant que jigéen tey moom yéen laa faral kon nag buñ ñu muñalul dara du baax muñ gi nag yow laa bëgg ngeen jàppale ñu ngeen muñal ñu muñal leen yéen góor ñi. waaw yow nag euh, ndey da ma maa attaqué ba pare bëgg ma soulager non du sorti da nga maa attaqué ba pare <laughs> nand ma bëgg maa soulager non <laughs> ndey gis nga euh, néegu sëy mhm. ñaara ko séq wax nga ko léegi góor ak jigéen. Mhm. Eh, yaa ngi ne léegi jigéen neex naa nax mm-hmm. waaye góor a gën a neex a nax ndey mm-hmm. gis nga góor mm-hmm. moo gën a neex a naxe te yéen jigéen yi xam ngeen ko ndax eh, góor eh, moom yàlla dafa am lum ko wàcceel mu di ñeenti soxna comme ni ko waxee benn boo ko amee Euh, damay wax naan jigéen saa yu amee wujju rek ci moom la gis nga jigéen bés bu amee wujju ci moom la ci sëy la ñuy wax de ndey. Hmm, bu góor ga weexee bët nag. non ah. góor góor gi mënta weex bët weex bët weex bët ba soxna sim takk bëgg ko teg ko ci kër gi euh, gën a gis lu ko jogati. Hmm. non non non non c'est pas possible parce que boo gisee góor am jot di génn di dem di taxawaalu ci ay mbedd di taxawaalu ci ay dibiteri c'est parce que amul satisfaction ci soxnaam te mënu koo fase ndax kóllëre gu ñu seq ñoom ñaar gis nga jigéen ñi dañoo bëri ay caprice ndey nga baal ma <laughs> parce que ñoom seeni mbir yépp wax nga ko ci sa mujjantalu wax nee nga mën ngeen a tooñ mën ngeen a xuloo mën ngeen a tamit fàtte démb. waaw mooy xuloo bi mais dama lay waxal ne la gis nga xuloo jigéen ak góor. Mm-hmm. du sori. parce que warta sori de. xam nga lu tax mooy sama njël benn wax rek tey bu la jigéen waxee lu la naqari jàppal ne démb neexalool na la bég nga seet loolu te ñaari nit yuy xuloo bu kenn ko noppee xuloo ba jeex mm-hmm. te en majeure partie du ma li tax may wax nag du problème góor la wala yow dama lay bëgg a wax ne góor ñi ñoo dàq muñ ci plan boobu. jëlal leen paar rek yow kay. góor mën naa encaisser day noppi rek mm-hmm. gis nga bu noppee wala sax lu ci ëpp. da ngay wax a wax a wax wax ba mar mu génn romb la dem. Hmm. jeexul. am na ñoo xam ne comme jóolooli. <laughs> non góor ñoo xam ne comme jóolooli. waaw waaw waaw ba tey loolu mën naa nekk. waaye dama lay wax ne la rek ñaar moom bu ñuy xuloo bu kenn ko noppee mu jeex te jigéen ñi wax dëgg fa yàlla nañ ma baal waaye macha allah dañuy mën a sos <laughs> mën a wax kàddu gu ñagas amul lenn luñ ji rus nag waaye tamit lenn de ñoom ñi ngi ci ñoom gis nga buñ la xasee xas laa xasa xasa xas wax la lu ne nga noppi quelques minutes après mu mel ni du woon ñoom <laughs> ñu génn ca loolu moom mi ngi ci faam yi te loolu mën naa ne signe la bu nice parce que nit ki day mer ba mu yàgg waaye meram tamit day giif tam yaa ngi may neexal. jigéen moo gën a gaaw a giif mais meram amul lu amul limite jigéen kay su dindee rek meram jeex na. amul limite cest à mën naa wax lu ne nag. ay toj naa ba tam dem kay. toj toj dana ko wax a wax a wax waaye après bon euh, day regretter. Ah. loolu moom am na moom lu wér la. am na ñoo xam ne du ñu regretter de. am na ñoo xam ne du ñu regretter hmm? na ñoo xam ne c'est ça. Hmm. du ñu regretter seen bët bii moo raw perkaal. te àddina bi bindoo na noo xam ne ni dañuy gën a dem xale yi di gën a jongoma dañuy gën a dem xale yi di gën a rafet génération bu ñëw rek dàq ba paase woon hmm. léegi nag yow ànd nga ak waa ji ngeen di ànd ba ngay xam ne yaa ngi ne jàdd jàddaaral sa lépp a ngi taxaw nga ànd ak forme ñëpp bëgg la foo romb ñu ne mu ngi ne ah nga tànn ko moom mu ñëw tànn la nga ànd ak moom ngeen dem ngeen xey benn suba sa cër yëpp bàyyeeku sa cër yëpp àndandoo bàyyeeku sa cër yëpp àndandoo jeex nekkatoo xale bu jigéen yaa ngi bugg a nekk meer yaa ngi bugg a nekk mag ah mu ne dafa ñukk ni yekk bu naqari nag di seeti sa moroomu doom na la ko indi ko ci kër gi ngeen yem atte mais du ko def du ko def day dem ànd ak moom di taxawaalu ci mbedd mi ñu naan gis ngeen jëkkër diwam gis ngeen bàyyi diwam gis ngeen lii gis ngeen laa am na loo xam ne ni nag dafa jaaduwul dafa jaaduwul ci yéen mooy weex bët gi may wax ci yéen weex ngeen bët ñeme ngeen ku leen xool ñeme ngeen xale da ngeen di dem ba ci yàgg ki ngeen bàyyi ci kër ga danaan yéen kii respecté wu ma kii respecté wu ma kii bëgguma am bëgg na la de akamu bëgg waaye dafa fekk ne bëtam jël na la xool na keneen ndax yow sa lépp wàcc na sa lépp bàyyeeku na jur nga jurati jurati fim mu ne talatoo sax sa borom kër li nga tal mooy toppatoo say doom sang leen toppatoo leen jox leen ñu lekk jox leen ñu naan eh, ba dootoo tal sax sa borom kër ak kurti kurti àddina bi dugg ak génn dem ak ñëw saat bu bu yàggee tuuti yow boo solatul tay baas di nga gis ku sol tay de di nga gis ku sol tay baas ànd ak sa jëkkër génn ci mbedd mi de ndax dem nga ba mën a sol sol tubay dem nga ba mën a too sol eh, tay baas dem nga ba mën a too sol yenn yoo xam ne ni eh, doo teg greffage nga toog nag ci kër ga di ko muñal mu ànd ak xale bu tuuti sa teg chevam boo xam ne mu ngi lang ba fa ko neex sol tubayam xéssal ba mel nu ko neex ndax yow talato xéssal bi lo am yobbu ko ci marché bi dimbandikoo ko ah kon ñun buñ mënul muñ nu def muñ kay boko tuddé jigen mo koy def ndax sa borom kër bu xeyé lim am rek la lay sanni nga nek ak say ñëk ci kër ga nek ak say goro ci kër ga te fo jaar nga def bom baax su dé jigen ju am sutura ka ca kër ga di fay yeewoo di sa njëkki jigéen mbaa muy sa goro warta xam li sa borom kër di yewwaale ak yow di la ko jox pour nga dem marché te ñoom fa la ñuy toog ne nongu ngaaral duñ la dimbale duñ la jàppale duñ la xool duñu dindi dërëm jox la te invité bu ñu am indi ko ci kër gi seen xarit bu wàcc école ne ko nañ dem kër ga añi da nga xam lan la lan la daj ba togg da nga xam lan la ko sa càmmiñ jox ba mu togg ah saadi bu ñun ñu ngi muñ de eh, ñu ngi muñ de ñu invité auditeurs yi nag pour ñu bokk ci ci ci émission bi euh, mën a oote ci 33 936 33. waaw waaw ligne bi loolu la. 33 936 33 pour ngeen euh, joxe seen xalaat wax seen xalaat bind seen xalaat envoyé ko ci ligne boobu euh, ndax yéen tamit ci ngeen bokk parce que seen xalaat tamit dana am njariñ lool ci ñun.

il faut ngeen ngeen ngeen participer. il faut ñu participer il faut ngeen participer pour mu neex. Mhm. ndax ku nekk ak sa gis-gis. ku nekk ak ni nga gisee. donc 33 936 33 33. waaw loolu la. voilà kon euh, ñu ngi leen di xaar ci seen réaction ak euh, seen contribution. ci suñu kër FM. parce que, ce que Ndeye Fatou. Mhm. Ndeye tey dana metti trop xam nga lu tax. Mhm. parce que. jigéen yàlla da koo bind mu xereñ lool xanaa xamoo jigéen ñoo gën a xereñ góor ñi. bu ñu neexee mu neex de. mooy xereñ gi ma la wax bu leen bu ñu neexee mu saf sàpp. maa la wax loolu. loolu loolu dañoo xereñ ci affaire boobu. moo tax ma ne la sànq mën nañu laa wax lu xeetu ñagas ñagas bu ne. quelques minutes après mu mel ni woon du ñoom ñoo waxoon lii. aka ñoo gaaw ci mosoo maa defal dara. ñoo ñu xeret nañ ci lool <laughs> macha allah euh, waaye comme ni mu koy waxee rek jigéen mooy muñal góor mooy muñal jigéen. Mm-hmm. waaye jigéen war naa mën a suturaal borom këram. Mm-hmm. li nga wax léegi am na solo. Mm-hmm. góor mooy dem di wuti. lu ko yàlla wërsëgam wërsëgal bu ñëwee jox la ko. xamal ne loolu la mhm. loolu mooy sutura jigéen ak boroom këram ndax ji góor góor moom boo ko suturaalee rek am nga ko ci sens bu ne mhm. jigéen mu génn romb ay nawlay boroom këram mhm. ñu xool ko xoolaat ko loolu sa sag la yow borom këram te jigéen nag bëgg na loolu Mm-hmm. foofu la sutura bi déparé mm-hmm. ya dañ lay dañ lay wekk en tant que góor dañ lay fonk respecté la ndax gis biñ gis sa soxna ak ni mel te loolu sutura la mm-hmm. pourtant est-ce que yaa ko def ci moom amaan na defoo ko ci moom waaye sutura sum la sàng moo waral loolu waaye nag raar na de lu raar la jigéen ñuy suturaal seen borom kër ba ci accès boobu c'est très rare ah am na nag am na ak bari sax léegi am na waaye raar na ndaxte eh, jigéen dafa wujje lu sa morom def danga koy def hmm. léegi da ngay gis jigéen ñi dañuy solu di solal seen borom kër taxaw sa jëkk borom kër ba mu xëy sangu ba set sol yéreem bu rafet nga niroole ko hmm. loolu lañ xewal léegi bu ngeen niroolewul tisu bi di ngeen niroole couleur bi defar ko ba mu baax mu génn solal ko lu set bul nangu sa borom kër di tilim bul nangu sa borom kër di xiif gis nga euh, tës tànk mhm. dafa am solo ci doomu aadama yow jeeg bi ne ci kër gi di sëy sa tës tank tànk ba setut sa bu sa borom kër du set yow mi ne ci kër gi mhm. di sangu ba set mhm. doo bomb sa tës tanki tànk yi ba mu set wecc naka ngay bombé sa bosu borom kër da ngay bomb say tëstan ba mu set wecc wecc wecc wecc wecc so bañé sa bosu borom kër xotti sa darab <laughs> waw boko dul bomb di ci diw karité di topato diko def out ay vaseline di ci diw hmm. darab bolal mu xoti ko góor lul boppam dara da niñ koy waxé ni góor dafa melni bébé mom lim xam moy daw uti ñew indi ci kër gi hmm. daw nañu dawa dawa dawa daw ba dee ndeysaan daw nañu daw des fois nak dama len di fan des fois dama len di bëgg dima len di ñaanal jamm waye des fois nak nga gis ci ño xamantene ni do bëgg lu dut <laughs> téelen di len mbéj di len mbéj di len mbéj bañ am téméri lex waaw parce que am na ñoo xam ne aka ñoo am jom am fulla ci seeni borom ci seeni soxna bugguñ ku len yab bugguñ ku len yërëm ñom ci seen bop dañoo bëgg fonku seen bop respecté seen bop kon nag dañuy respecté ngi nga xam ne moom lañ nekkal bëri tiitër mm-hmm. soo baree tiitër rek sa jabar da kenn du ko yab waaye booy doxee zaman fu ah kooku lu mu am yóbbu ci mbedd mi lu muy toppatooy borom soxnaam te saat bi goro yi ci kër gi tamit cër lañu ci kër gi ki nga xam ne moo la joral jural euh, borom kër mm. bi lay sagal di la teral ba foo taxaw ñu ne xool leen soxna si diw foo taxaw kenn du la yërëm donte ta ngi dundee géej ak keccax sax kenn dula la mu ngi la koy jox ba mu doy géej gogu ak keccax gi ndax bir du fen bir du fen na fees solal sa yu set sagar yi la yalla jox dee ko bacc ba mu set di ko diko di ko ba mu bax mm. nga pass ko ba mu ne ner nga di ko sol de dajak eh, gor yi mais bo xébé sa bop rek xéblu ki nga nekkal mm. xeeb sa bop moy fo tok yaangi sol ay sagar di darngu ci kër gi képar gu jeex nga toxu ca ba ca dess taloo defar sa bopp bay defar sa néeg kooku talul defar néegam bay defar néegu gorom mm-hmm. te gorom mooy yaay man contre naa trop trop trop jig jigéen juy sëy ci kër naan tanta wala yaa diw mm. tanta diw wala yaay diw waaye wala nga naan mama contre naa ko lool lool lool yaay nga bàyyi yaay nga fekk sa na dégg yaay bàyyi nga bàyyi bàyyi nga fekk sa papa njëkke yu mag yi ci kër gi nga def leen comme say mag jox leen cër bala ngaa génn tàggu leen balaa ngaa def tàggu leen ñu ndaw ñi nga jël leen def leen say rak loo am bokk ak ñoom ñun ñoo sonnal suñ bopp de ñun ñoo sonnal suñ bopp ndax yaay jóge ci kër nekk fa ak sa nday ak sa baay nekk ak ñoom ci jàmm dem ak say rak ak say mag dem kër jàmm kër gi ngay sëyi gi nga xam ne fa nga war a jënd bàmmeel sey fa dem dir mbagg ña nga fa fekk xamoo nuñ def ba am ko nga ne mbubb ma mu sol lu tax awma ko diw jënd na li tax jëndu jëndaloo ma ko yow xalaatoo noo defee sa sa àdduna ëllëg nga am ngërëm ëllëg nga am woy ah say dañ cay ut wëy de wëy wu nga cay ut mm-hmm. wëy nga cay sa borom kër taxaw gërëm la ci biir mbooloo say njëkke taxaw gërëm la sa goro taxaw gërëm la ay boobu bànneex ak boobu mbégte jigéen ju ne war na koo ut mm-hmm. sàkku ko booy dund gërëmuñ la man bu ma deyee bu ma kenn gërëm may dund gërëmoo ma su ma deyee bu ma gërëm ndax li ngay wax du dëgg ci yow ngistal la kon nag defal loo xam ne ci ba ngay dund dañ lay gërëm soo deyee ñu gërëm la mu mun a saf te ngërëmul borom kër nag day yegg ba ci borom bi sa borom kër ngërëmam day yegg ba ca yàlla day bok ci liñ lay atté témoignage yi la sa borom kër di defal ak yi la eh, dëkkandoo yi defal ak sa mbokki jëkkëri day yegg ba ci borom bi kon nag nañ jënd bàmmeel fa nga xam ne fa lañ ñu wàccee pour ñu fay sëy bàmmeel ku koy jënd faw nga defar bàmmeel ba heure boo cay dugg nga fekk ci lu xam ni dana dal dana dal xel boo fa nee cëpp ñu dugal la fa guddi gu njëkk nga fay fanaan boo dajeeg malaaka bi bul mireb kenn kenn kenn kenn sa jëf rek nga fay fekk est-ce que am na solo amatina solo ne mu daan amee solo euh, dugg nga ci goro. Mm-hmm. ñooñu nag ñooy fondement bi parce que goro mooy jur jëkkër walla jabar foofu c'est partage mm-hmm. parce que goro mooy fondement bi ndax bu jurul woon dara du am. Mm-hmm. donc kon. ñoom ñoo meññi ñi nga xam ne ay woy dencante la mhm. muy goro bu góor wala goro bu jigéen ci deux sens yëpp foofu yaatu na trop euh, goro yi dafa am loo xam ne yàlla daf leen ko cërale muy kilifa parce que boo amee sa doom mu ut soxna indi ci kër gi jàppal ne yow am nga ñaari kilifteef benn yow sa doom muy ku góor ki ak sa doom bi nga xam ne sa doom ko indi ci kër gi mu nekk doom ci yow ñaar ñooñu nag bu kër ga neexee rek ca gorobal ndax goro boobu mën naa gis lu doomam di def te jaaduwut mu woo ko ne ko defel nii defel nii ndax kii suñu nawle la da nga koy jëlee ci kër indi ci kër gi te loolu bariwul ndey am na goro yoo xam ne doy nañu war de. Mhm. gis nga ma nettali la benn affaire. Hmm. gis naa xale boo xam ne ni dafa am euh, moroomu goneem gum takk. Hmm. ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ. mu yóbbu ko ci kër yaay ji ba mu ko yóbboo ci kër yaay ji mu sëy wax dëgg yàlla ba muy ñëw di ko ut si nag wax dëgg yàlla indil na ko alal. ñu takk muur mu sëyi mu nekk fa mais goro bu jigéen bi dafa xeeb xale bi xeebaale yaayam yaayu boroom kër gi hmm. dafa xeeb xale bi xeeb yaayam ba tax na ñaari baat yu ñu wax ci kër gi rek ñoom ay làkkat lañ mu làkk xale bu góor bi ci seen làkk ne ko fase ko ñaari baat yu ñu wax rek mu ne ko fase ko léegi xale bi tamit dafa nekk muus ndax jàng na loolu mu koy wax noonu mu dégg saa yu ñu waxee rek xam nga bañ ak làmmiñ dëkk faw ñu laalante te ñàkk ànd bu ne faw mu am bés boo xam ne faw ngeen cok cok cokkasante ku ne laal sa moroom mu tàng xaw a tàng jër su ngeen paree delluwaat ca na ngeen newoon buñ laalantee rek mu ne ko mu làkk ko ci seen làkk ne ko fase ko te ndax xam xale bi goro bi jigéen bi may ko woon jàmm te lépp mu ngi koy muñ lu mu wax rek ay waajuram ne ko toogal toogal sëy toogal muñ su ñëwee kalaame rek ñu ne ko moo la ko war a def toogal muñ su la dóoree sax toogal muñ mu koy dóor moom goro bu jigéen bi da koy dóor xale bi dóoral moo la war a dóor ndax mooy sa yaay ndax ñun bañ la koy jox dañ ne na mottali sa yar ba benn bés xale bi lim koy làkk noonu mu bind ko ci fëy am koo xam ne day làkk li mère bi di làkk mu dem ba ci moom ne ko nuyu ko ne ko yaay buy man damaa ñëw di la laaj si lii lu mu tekki mu ne ko lii de kuñ koy wax mu ne ko man mu ne ko ah daf ne na la fase de mu ne ko loolu lay wax mu ne ko ah bés bu ko waxatee de dinaa ko wax ne ko defal li sa yaay wax mu ne ko déedéet bul wax loolu waaye wax jooju booy ay noppam booy ay noppam ba bam ko ko waxee daf ko ne lii la sa yaay di wax xam naa lu mu tekki te di nga ko def tey ndax sa yaay yàgg na ko wax nee na nga fase ma kon di ma fase tey noonu la ko fasee goro bu góor bi ndeysaan ci xol bu rafet ba ne ko ñëw ba ci noppam ne ko bu fi bàyyi dara ndax ñoo la fase xale bi ne ko soxlawu ma fi dara noonu la xale bi demee yàq sëy bi ñu ngi bëggante ba léegi waaye wayjur bu jigéen bi moo yàq seen diggante am na ñoo xam ne dañoo toog ci kër yi di defaral seeni doom ak seeni soxna am na ñoo xam ne dañoo toog ci kër gi di yàq rek fu ñu toll ñu ngi yàq rek bëggee ak tiit tax ñuy yàq lan mooy teraanga lan mooy piis da koy sol mu xotteeku yow luñ la jox fekk amoon nga ko lan mooy xaalis hmm. bu yendoo ci yow du fanaan xam nga lan moo am solo teraanga gu dëkk mooy respect ak cër déggal la muñal la sutural la teranga gugu ben teranga ëpp ko ci àddina waaye bépp bépp mbub muñ la solalit fekkoon na nga sol ko hmm. wala boo solul lu mel noonu defoo yaramu neen lépp luñ la jox ci alalit alal jooju fekk na yaa ngi ko yore même bu dee ñaar dërëm sax am na am nga ko ci sa biir poset mm-hmm. te du yendoog yow wala bu yendoo du fanaan kon nañu jàppale suñu suñu doom yi nañu jàppale suñu soxnaay doom yi ndax lool lebal sa ndey soo demee ci sa goro mu fay ko fa loo lebal doomu jàmbur sa doom bu demee ñu fay ko ko suñu muñalee suñu xaay goro yi ñi indil ci kër yi suñu doom bu jigéen bu demee rek goro muñal ko nga gund xataal sa sa goro gi ci kër gi sa doom bu demee la même chose kon nag lépp too faytoo mbir maa ngay tàmbalee nag ca sa ndey jëla jur mm-hmm. nga nekk sa ndey ci kër gi laata ngay sëy yi bu la nee benn nga ne ko téeméer bu la nee cooy nga ne ko gel nga boo sëyee rek sa goro bu la nee cooy nga ne ko gel ah <laughs> waaw lebal goro rek loolu lebal ndey rek fay ko ci goro lépp too faytoo lépp too faytoo la c'est yar bañ doon wax barki démb dikkaat na. Mhm. yar suñu doom yi rek soo yaroo mën a yar sa doom. fu mu dem mën faa nekk respecté goroom goro du goro yaay la ki la jural ki nga xam ne nii moo ko dàmp defar ko pattu làggewul ñaawul ñuulul bu ñuulee it nga xam ne yàllaa ko ko bindee defar na ko ba nga xam ne doon na góor yàlla boo xam ne ko gis bëgg ko yàlla boole ko ak yow nga la joxal kooku cër gu mat sëkk def ko yaay mhm. baay bi nga xam ne dafa doon daw di dang dang dang dang ba indi koo xam ne léegi mu ngi daw ci kër gi kooku tamit jox ko cër te xam ne ci retraite la toll mhm. retraité na ci liggéey bi retraité na ci kër gi ndax doomam màgg na pilyaan bi nga xam ne moom la teg di ci jaamu yàlla dee ko fa fekk ak yu neex waay dee ko fa fekk ak yu baax ah dee ko fa fekk ak wax ju neex mag amul lu dul wax ju neex ak biiram fees mag xale la mag yëfam wéy na ci kaw boo koy toppatoo mm. waaye mag la rek ba ko foofu xiif di ko rey mag la rek ba ko foofu du am ku mu yónni ndox mag la rek ba ko foofu yu noo yooyu ñuy jënd di ko jox mag ñi dañ leen koy jox ñu làq ko ci seeni garaam bu di ko mumuñ utal lu sedd guy jox ko mu lee mu naan ñëwal ci wetam waxtaan ak moom bokkal ko dara soo ko defee rek nga am jàmmam te sa jàmmi goro mm. mooy sa jàmmi jëkkër ñoom bu ñu kontaanee rek sa say neex sa borom kër kontaan loolu daal laa xam ne nii yow euh, Cheikh saat bu mm-hmm. ah yéen li ngeen di sikki sikki sikki yëpp boolewu leen ci seen way jur yi seen way jur yi moom ku ko laal ku ko laal ngeen jóg waaw bëgg say neex nag nga toppatoo way jur yi waaw dëgg la dëgg la ndey as waxati nga dëgg mm-hmm, ci laa dëkk waaye ndey dama mës a dugg ci kër goo xam ne kër gi maanaam soxna sa fa nekk mm-hmm. jur ay góor kenn ku ci nekk am soxna ma dugg fa nag benn jour ñëw fekk goro bi mer di saaga di xuloo ñi naan kii nii la mel toujours nii lay def ndey xam nga lan laa def mhm. dama leen a woo ñoom jigéen ñi ñoom ñëpp parce que kilifa laa ci ñoom quand mhm. ma woo leen ne yaa ko wax léegi ma ne leen mag mag euh, dafa am lu lekk ci moom luy nelaw kenn waru koo yee mhm. ndax bu amee ay doom doom ya màgg takk soxna indi ci kër gi mag moomu dafa am lu muy toogee foofu mhm. ma leen nag mag mii ngeen yor naqariwul deret yéen a koy tooñ pas que mag buur la te mhm. it jar naa ci ndax bu fekke ne ni ma leen di gisee ñew naa fi benn yoon ñew fi ñaar yoon ngeen toog ne gauche mag ma toog ne à droite wetaay dugg na wetaay dugg na mhm. ngeen di waxtaan mag mi ne cell noppi jàpp njaamuram yaa quelque chose mhm. mag moomu lan lay xalaat ñii de sama dooma leen indi ci kër gi faale wuñ ma mhm. respecté wuñ ma dañ may jëw mhm. daldi di benn bruit mhm. coow la jóg n'importe quel bruit ah ma ne leen loolu moo koy waral te bés bu loolu dakkee dootu loon ko dégg mu wax ñu dawal ay fan ñu commencé bu ñëwee toog dend ak moom waxtaan ak moom mën nañ ko bañ a jox dara sax parce que euh, ci liñ ma nettali nee nañ joxuñ ko dara ñun daal liñ doon def mooy ñëw di ko waxtaan ak moom muy xaqataay di rey ma leen jeex na mhm. loolu mooy solution bi mhm. moo tax ma ne la li nga wax léegi boo nekkee soxna ci kër respectel mag ma fa nekk mhm. di ko bàyyi xel di waxtaan ak moom boo jëm tàgg ko di kaf ak moom ndax doom yi ngay jur ay sëtam lañ mhm. te sët yooyu ñoo koy mottali mhm. léegi bu fekkee contentieux amul foofu maanaam neexoo amu fa mais du du kontaan mhm. kon ndey faat ndey ndey asu jigéen doy na waar jigéen <laughs> yéeme na yow daal tey ni ma la amee non ni ma la amee mënoo fayu non cest man damay damay man doxkat laa xam nga. Mm-hmm. te man ko fonk jigéen laa aussi. Mm-hmm. ah boo fonkee sa waajur rek fonk jigéen ndax jigéen boo nangoo ne yàlla moo ko sàkk ci ay caprice mm-hmm. mu xereñ lool ci ay yëngoom ak ay dalam. boo ko comprendre yow góor gasi. Ah, waajur yi tamit. soo amul loo ko jox mhm. amal sa jot jox ko ko li ma la wax rek euh, boo toogee xam nga boo demee ba jëm mag sa loxo yi fu mu daan yegg dootu fa yegg mhm. yëkkati sa loxo aj ko ci sa bopp sax dootu ko mën nga jël nag boppam bii raxas ko ba mu set wecc ak sa shampoing peñe ko jël karité diwal ko ci léttal ko ko mëggal ko ko ba mu tëdd bu soloo nga xool ndax set na walla tilim na xool kaala yi muy sàngoo jàpp tànkam yi fuddanal ko ko ba mu jaar yoon ak loxoom yii ah du la yemale kenn de. Hmm. am na sama genre goo xam ne moom bëgguñu dëkk ak goro appartement la ñuy laaj waaye apartement boobu mën nga cee dëkk ba pare sa goro sa goro gërëm la ndax fexeel ba boo baxalee ndox sax mu naan ca hmm. soo baxalee ndox bu dee soreewu leen na ca naan su dee ndox mi jotewul nag soree ngeen hmm. li mu war a baxalee ndox mi weer wu ne na ñëw wala boobu weer wu ne li nga xam ne moom lay baxalee ndox ma na ñëw di baxal ndoxam di naan weer wu ne soo munta am poti karité nga poti mentalaatu yónnee ko ko hmm. weer wu ne soo munta togg ganaar indil ko nga joxe njëgu ganaar ga ñam nekkal toggal ko ko hmm. mën ngaa soreg moom te làq ngërmandeem ngay sëy ba waaw ngay sëy sëy ba waaye sëy bi moom sa jëkkër say doom lekk mu des ngeen jox euh, kiy yalwaan. loolu nag la jigéen ñi xewal léegi. ah loolu yoru ko. Mm-hmm. loolu man góor ñi laa ci sikki de ndax yow chaque jour ñu ngi lay bernde yaa ngi lekk ba suur cuuraay nañ appartement ba mu neex lalal nañ la dara bi set wecc fa ngay toog set na sa yére set na war ngaa nemmeeku say wayjur ndax li ngay lekk mu ngi koy lekk. merci beaucoup. man loolu góor ñi laa ci sikki de. ay ay góoram nag. war ngaa nemmeeku sa borom sa yaay ndax bu ko sa soxna soree ba munu koo yekkal weer wu dee bu dee ñaari junni ngay dundee sa kër dindil ñeenti téeméeri yónnee ko sa yaay ne ko yaay am lekkal li mu lekk loolu mag ñi bu nañ am lu ñuy fas rek nañ am lu ñu denc mhm. suñ amee lu ñu denc rek seen xel dal loo xam ne ni bu seen sët ñëwee ñu mun cee dindi ne ko am demal jënd li nga bëgg su boobaa rek ngeen am seen ngeen am jàmm mu am jàmm waaye mag wàllam woy na amul lu dul ku koy wéttali kuy waxtaan ak moom kuy feesal biiram mm-hmm. kuy setal ay yéreem raxas boppam bi ba mu set peñe ko mëggal ko ko soo mënta mëgg nga oo ko ko mëgg nga fay ko bu dee ñaar téeméer waaye sama genre gi dañ naan moo bee jaawam bii duma ko tiim mukk di umu <laughs> te ngay tiim sa bu yaay raxas ko ba mu set mm. létt ko ba mu baax ki lay tax a aayoo ne nga ne doo ko doo ko doo raxas bopp yaay nga teg ko fan fi nga ko teg du fenn nag mhm. soo mënee teral sa borom kër rek nag war cee boole na yaayam di ko jur ak baayam di ko jur foo romb mbaxana mu rafet jënd jox ko soo gisee sa jaada bu rafet jënd jox ko mhm. maraakiis boo romb jënd jox ko waaye paa yi ñoom nañ toog seen toog rek def wàccee seeni verre yor seen kurus <laughs> boobu seen xol neexul de mhm. duñ wax de li leen naqari mm. kenn du ko xam duñu wax wax ji kay bu amee ñun ñooy wax goro yu jigéen ñi mm-hmm. waaye goro bu góor bi du wax de patt lay def wàccee ay veeram waaye su duggee ci biir ak soxnaam ci biir néegam mu ne ko li nga jur dara baaxu ci jigéen ko jur fi ne nii li nga jur dara baaxu ci ndax bu baaxoon du nangu soxnaam muy def léeg-léeg lii waaye du wax jamais li ñu jur dara baaxu ci mm-hmm. li nga jur dara baaxu ci jigéen a sonn jigéen dee waaw moo tax nag ñu war a góor góorgóorlu ñoom jigéen. waaye dangeen ngeen ñu jàppale ñu góorgóorlu. waaw jàppale bi moom. Mhm. ñaar yu yi ma la wax rek ca njëlbeen. jigéen suturaal góor góor yërëm jigéen ñaar yooyu ñoo fonde sëy te sëy contrat la indéterminé. Mhm. xam nga nag nday yow wàllu wàllu sëy moom. professionnel laa ci parce que indo yee ma yar. contrat bi nag dafa am loo xam ne dañ ko cee fàccee signé de. indo yi ñoo ma inspiré. <laughs> indo yi xam nga indo sooy indo sax moom moom dafa jaar yoon macha allah ndax moom dañoo respecté wante. merci beaucoup. waaye gis nga fii ci senegal bi hmm. contrat bi am na loo xam ne signé wuñ ko. li ñu fàttee siñe mooy yow ngay xëy sa borom kër di xëy la waroon ci yow dootu ko def am nga la lay wax <laughs> am nga. ba tax na bu lay jox sax dépense da koy wàññi ndax am nga. loolu moom du sart <laughs> ah. yi. bokkul ci sart yi bokkul ci sart yi parce que même bu dee dafa yor ay milliards moom jigéen ji yow sa devoir mooy nga jox ko sa ñetti téeméer yi nga koy jox. waaw dépense loolu c'est une obligation boo xam ne yàlla moo la ko teg. Mhm. Euh, kon day. Mhm. yàlla nañu yàlla defal topp. dégg ak topp. amin yàlla suturaal ñu amiin suturaal tamit yéen ñi nga xam ne yéen a ubbi seen nopp di déglu yàlla na yàlla def jàmm amiin defal ñu ko defal leen ko amiin def ci suñuy poos dara allahumma su ko ci def na bëri amiin su bëree na barkeel amiin su barkeelee na may xol bu ñu ko yaatalee ba ñëpp am amiin amiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dama ci teg dara lu